ginnaaw bi ñu ubbee commission yi pour bindu ci élection yi jàngat bi ma ci am mooy yàgg nañ ma wax yaa ngi toog rek waaye yaa ngi nelaw ma ne leen lu xew ñu ne ma sama gars yi ñu ngi jëlee ay nit yëmbal Kër Massar ak Thiaroye ak Fass mbaaw di leen indi di leen transféré fi ma ne leen wax jooju rek doyul faaw ngeen jox ma loo xam ne mën naa ci sukkandiku pour bañ ko mais tey li yàlla di def bi may xëy di liggéey si ndax man damay dox laa ñëw ci yam ci oto bi oto bi xàmmee nañ ko fi fan yëpp dafa mel ni sax ci centre bi li liggéey DK 62 08 BL moo daan njëkk di ñëw mais tey ba ma fekk DK 70 25 BL la mooy L200 yu gris yooyu nga xam ni port la ñu liggéeyee bi ma ñëwee fekk chauffeur bi mu toog ci oto bi ci kanam mu yor kayit yu bari ma ne ko ndax mën naa xool kayit yi mun ma déedéet ma wax wax mun ma doo ko xool daal di jël kayit yi dugal ci saak bi mu yoroon nga xam ni classeur a ngi ci kayit yu bari yëkkati vitre oto bi woo ay gaawam pour ñu ñëw mais ñi doon ñëw ñëpp waa kër DG Port la looloo ma jaaxal alors bi mu ñëwee ma woo sécurité ni leen téye leen immobiliser leen oto bi bu mu dem daal di woo commissaire police ne ko ñëwal fekke lii lii lu ñaaw la jongante jongante la bu la yàlla mayee yàlla moo la may bu la yàlla xañee yàlla la xañ mais nu ñu jongante ci gor ci dal ci jub waaye jële ay nit feneen te dëkkuñu ci commune bi bëgg leen fexe ñu voté ci commune bi mais ñooñu faluñu maire bi dëkkuñu fi yeewawuñ fi te li ma yéem mooy ba may wax ak chauffeur bi lu yàgg ñetti jigéen agsi mel ni kuy ubbi portière bi biñ ma gisee ñu taxaw ma taxaw ñu daal di daal continué waat man leen eh, fu ngeen jëm ci du ci bi ngeen jëmul kaa leen dugg ci oto bi ñun ma door dañ doon romb di dem rek ma ne leen ku jur doom ji xale bi ci biir tàngooru métti na wax leen ma ku jur doom ji ñun ma ñoo ñun dañu woon fi rek dëkkuñu fi ma ne leen woo naa commissaire police bi de am ngeen carte d'identité ñu génneel ma seen carte d'identité mais ñoom ñaar ñëpp kenn ki mi ngi nii Fass école Fass Mbao lay voté keneen ki mi ngi nii école fas Mbao lay voté ñaari jeeg lañu keneen ki ni ma amul carte d'identité ñu ngi may wutal carte d'identité te du lii rek jàgg nañ ko def booboog léegi te li ci gën a yéeme mooy ñoom ñëpp bu ñu leen indee adresse bi leen di jox même adresse la mooy numéro 13 Castor numéro 13 xam naa ña fa dëkk mbooloo mu ñu toll dëkku fa daayira amu fa université amu fa. école franco arabe amu fa sama gars yi naan ma ay étudiant lañu jéeg yooyu mën nañu nekk étudiant ci kaw loolu lañu dem ci commission bi ma wax ko waa SEDA bi wax ko président commission bi ñu ne ma ñoom ci seen bopp sax gis nañu loolu ndax bari na loolu mais loolu bu amee am na complicité délégué de quartier te avant ñu commencé laa wax ab euh, al góor gi Aliou Ndiaye mi ngi may dégg waxal délégué de quartier yëpp ñu ngi jëm ci bindu kenn ku ci nekk na nga teg sa àq ak yelleef ba booy joxe kayit bi ne la wóor ne ki ngay joxe kayit bi fi la dëkk waaye dafa mel ni am na délégué de quartier yu déggul loolu lu leen neex la def mais nag man dinaa jël sama matukaay ndax loolu mënul wéy délégué de quartier dafa war tëddee njaaxaanaay buy joxe kayit mu joxe kayit yu wér yu wóor même bu mënul dox ba gis mais mu laaj sax borom kër gi nga dëkk fan la kan moo fa dëkk yaa kenn mais ñi ñuy interroger yëpp boo leen waxee foo dëkk ci commune bi soit dañuy lox maa ñu naan la commune Dieuppeul Derklé la duñ la wax sax adresse bu exacte fu ñu dëkk te toujours ñu ngi leen di inscrire ci même adresse boobu ma la jox mais loolu fraude la loolu sàcc la loolu du du élégance dafa ñaaw dafa jéggi dayoo rafetul jekkul jaadoo ñëpp ñu ngi may dégg nag dinaa ko jébaane fépp ba ñëpp xam ko bu ko defee matukaay yi nga xam ne war nañ ko jël ñu jël ko mu mat sëkk ndax loolu duñ ko seetaan ah c'est inacceptable c'est trop c'est trop ba ñu demee police wax nañu ko mais man man man yàlla man la def maay maire maay officier d'état civil maa waroon di signer certificat de résidence yi ginnaaw bu ñu ma wanee certificat de domicile mais am na ci délégué de quartier yoo xam ne il ne joue pas le naam waxuma la ñoom la mais mag nañu mag goo xam ne seeni njaboot am na ñuy fay bind certificat domicile te xam nañu leen dinaa wax ñoom dinaa ci jël matukaay yi nga xam ne aussi war naa ko jël parce que loolu dëgg du yoon jaaduwul ci bés bu tedd bu mel ni bisu ajuma bi mais càcc gi dafa ëpp càcc gi dafa ëpp du yëfi jullit c'est dégueulasse même à la limite rafetul c'est écœurant c'est inélégant la preuve bu ma ñëwee taxaw foofu ci oto bi di wax ak euh, chauffeur bi ñoom ñëpp ñëw mel ni làmb ju tas ça veut dire que ñoom xam nañu lépp la ndax bi ma jëkkee ak si xam naa kenn ci ñoom man leen waaw lan moo waral attroupement bi ci buntu centre bi man ma ay ñee fa taxaw di waxal ak ñoom mais ci ñoom la bokk vraiment politique du lii waay politique nañ ko sellal nañ ko rafetal. mais situation bi ma may moo tax dem naa ba ci commission bi xamal ko waa SEDA bi woo naa sous-préfet aussi waxal ko ko woo représentant ya fa nekk ni leen yéen bu ngeen gisee lu mel nii da ngeen war a bañ bloqué ba ñu régler situation bi ngeen continuer liggéeyal loolu mooy yoon dëkk bi dëkk yoon la dañu war doxal yoon buñ ko war rek li ma ci jaaxal mooy L200 yëpp ñoo bokk immatriculation te fa ñu liggéeyee fenn la mais dafa ñaaw décision bi ma jël mooy du ma du ma jëlaat signature bi di signer certificat de résidence dinaa wax ki ma jox officier d'état civil bi certificat de résidence yi bu koy defati am na ci délégué yoo xam ne bu ñuy indee certificat de domicile bu leen defal certificat de résidence on va suspendre leur certificat de domicile jusqu'à nouvel ordre parce que doxaluñu yoon lu ma ci góobee nag gar ko c'est ça la légalité délégué de quartier boobu yaa ma yaa ma lu ma neex laay def maa tey mais loolu du yoon et ñoom délégué de quartier dëgg yi titulaires yi defuñu ko mais seeni njaboot ñooy jël ay certificat bu leen neex di bindal ay nit ñu fi dëkkul mais nit ñi da ànd ak ñoom mais même ñun dañu ne woon bala ngay def certificat de résidence ki indi domicile dafa war a teew bu teewee nga laaj ko fan la dëkk mu wax la ci kàddu gu leer nañ kër sàngam numéro sàngam mais ñi ñu fi indi yëpp dëkkuñu fi boo leen xoolee rek xam ne ñii duñu duñu nitu commune Dieuppeul Derklé dafa neex a xàmmee ñenn ñi sax dégguñu wolof bu leer mais dafa ñaaw vraiment c'est c'est rafetul quoi man de vraiment yaakaaru moon ne suma gars yi daañu àgg fii ko ils sont tombés trop ba trop ba gars yi rafetal leen affaire bi waaye na yiw na sell na jub na dëgg quoi. asalaamaaleykum waa commune de Dieuppeul Derklé man la Nawel Guèye di responsable politique euh, tey lu xew fii ci centre état civil bu Derklé jéggi na dayo parce que depuis quelque temps on a constaté que yaa a un blocus boo nga xam ne monsieur le maire mi mu ngi koy def ci processus électoral bi premier acte mooy mu indi koo xam ne mooy def exclusivement les certificats de résidence boo xam ne mu ngi koy doog indi ci mairie bi alors que les agents de la mairie sont là depuis plusieurs années donc kooku il vient entrer dans le processus électoral en cours en cours de jeu kooku benn aspect la depuis barki dem personne ne peut avoir un certificat de résidence kenn mënul am certificat de résidence parce que ñu ne ñu de ta civil bi dafa am examen bu muy def donc certificat yi daal ba lëndi donc ñetti fan yi yëpp kenn mënul am résidence et les jours sont comptés processus électoral bi révision électorale la ñu nekk quarante cinq jours la boo ci dindee trois jours yoo xam ne nit ñi mënuñu am euh, certificat de résidence day indi ay blocus ay rush lay indi à la en fin de du processus donc loolu ñu ñu pensons que c'est fait délibérément waaw c'est fait sciemment par le par l'équipe municipale loolu benn affaire la ce qui s'est passé nag dafa jéggi dayo ay nit yoo xam ne dañu yore certificat de résidence boo xam ne maire si boppam moo délégué ki koy signé ku ñuy wax Alioune Ndoye mooy officier d'état civil moo ko signé nit yooyu ñëw régulièrement ra dugg commission bi accepté seen seen vote seen seen seen ñenn ñi changement d'adresse la ñenn ñi non inscrit en tout cas commission bi bi ñu leen jëlee euh, validé nañu seen seen inscription ñu génn ci biti taseeg maire parce que y a boo xam ne kii maire la àndal te c'est le c'est le représentant du maire dans la commission lui au lieu de s'asseoir dans la commission mais day génn di renseigner maire alors il appelle le maire tombeeg ñooñu di génn maire si boppam moo leen interpellé maire Cheikh Gueye lay wax je dis bien le maire Cheikh Gueye de la commune de Dieuppeul Derklé moo leen interpellé kot nen ne leen yéen dëkku leen fii de quel droit le maire war na mën a taxaw naan ñii dëkkuñu fi laaj leen seen carte confisqué ko bi ñu koy xaw a génnee sax daf ko confisqué il a confisqué au moins deux pièces d'identité après affaire bi am tuuti coow ñu ñu woo police comme la police est toujours là donc ñu wo police ensuite on a été à la police euh, commissaire bi entendre nu li ko commissaire bi wax ak lu ñu wax ñun ñëpp dégg nañ ko personne le commissaire a dit que personne ne peut arrêter de façon délibérée le processus électoral muy ñun muy maire muy keneen nit yi bu ñu yoree seen kayit war a ñëw inscrire kenn mun leen tere inscrire ay certificat de domicile bii baax na certificat de résidence bi baaxul certificat de résidence yi moom maire ki mu fi teg moo koy signé bu amee nag ay problème ak certificat de domicile ak ak euh, les délégués de quartier loolu na ko dem lijjanti ak délégué de quartier ou bien il n'a qu'à porter plainte mais ñun c'est de notre droit c'est de notre droit ñu am ay nit yoo xam ne ñu ngi ci biir commune bi taye la ñëw ñu dajale leen dugal leen si ay yóbbul leen ñu inscrire ñu génnaat ñun dugg ñu si centre bi ci biti lañu yem donc ki nga xam ne dañ ko jàpp tey di di di nangu ah, mu indi ay nervi ñu jàpp chauffeur bi nga xam ne dafa doon indi rek transporter rek quelques militants pour que ñu ñëw inscrire loolu moo indi coow bi tey loolu moo waral coow bi tey fii au niveau du centre d'état civil ñuy dénoncer nag les deux choses bi ma wax loolu benn bi mooy le maire en cours du du processus si la indi quelqu'un boo xam ne nee na kooku rek mooy def mooy mooy mooy bind bind la wax de mooy bind certificat de résidence donc yeneen agent yi fa nga xam ne depuis dix ans vingt ans ñi ngi fi du ñu bind dara ah loolu benn aspect la beneen bi l'officier d'état civil on le fait absenté je le dis on le fait absenté dañuy xëy ñu ne ñu dafa dafa am examen bu muy def mais si l'officier d'état civil ne signe pas lui le maire qui a la délégation de signature war na mën a signer mais aussi ñi nga xam ne dañoo dañoo bind ba pare ba génn ci biti ñu leen di interpeller di nangu seen carte leen dëkku leen fi mais loolu fan la am c'est ce que nous dénonçons loolu moo indi coow bi tey ci centre d'état civil bu Derklé